chaque fois qu'il y a des investitures il peut y avoir maanaam ay ay ay ay situations yu mel noonu chacun exprime ses sentiments par rapport à cela mais également yi woo faire valoir tamit di nga xamante moom nga moom nga bëgg le monde rural s'est exprimé je pense que depuis que le président de la Macky Sall est là mu ngi gën a ngi bàyyi xel la monde rural par rapport aux investis au conseil yi bële passé le monde rural na amoon na ko ci nekkoon mooy l'honorable Lamine Top élection élection yi également le monde rural est par Mbaye Tine et il va loolu aussi dafay continuer loolu amul tànk ginnaaw tànk kanam la et c'est un message qui est bien bien bien écouté par le président bien entendu et ñun en tant que responsable on va travailler également à ce que préoccupation du monde rural soit bien mieux prise en charge. waaw non xam nga taxawaay au conseil moom ajuwul sax élection bi parce que au conseil c'est par rapport déjà même mandat bi passé taxawaayu au conseil taxawaay bi rafet na am nañu engagement te it dañuy accompagner à travers des propositions des avis et des suggestions la politique du président de la République en matière de gestion des collectivités territoriales tey réew mi tey kenn mënu ko wax te waxuloo collectivité territoriale président de la dafa fekk fii ay communauté rurale va vers Euh, disons la communalisation intégrale tey loolu c'est une réalité tey jàpp au conseil dafa war a nekk instrument nekk un cadre nekk organe bu buy impulser ànd ak président de la République lépp la nga xamante ne moom mooy gestion des collectivités locales au niveau du Sénégal donc euh, mandat bi comme mandat bi weesu yëpp jàpp naa dañ koy inscrire euh, sur sur le sceau de la de la performance de l'institution dont, dont l'existence n'est plus, n'est plus à démontrer.